أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيد الإنس والجن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم mbokk yi ñu dikk ak yéen ci suñu ñaareelu tomb ci burdatul madih di waxtaan ci melow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne sunu góor bu baax googu sayid Mouhamadul Busayri moo ko way way yu nose yoo xam ne tabaarakallahu yàlla nañu ko yàlla fayal ñu nekk ci weeru gàmm di ñaanal ñëpp ñu fekke déwén te déwén dàqal ñu ren yàlla dàq dàqal ñu jàngoro yi nga xam ne ñu dugg ci réew mi di ziar bu baax nag waa groupe sallallahu ala muhammad euh, sama jawrin Cheikh Ali Sène euh, sëñ Malick seen sama soppe bopp xaaj Mansour di sama baay euh, di ziyaari nag sëñ Assane maam bu naa ma sow ak sama xaritu bopp sama soppe bu xataaral bi sëñ du Mbuub ñu ziyaar ñëpp ak mboolem koo xam ne yaa ngi ci ginnaaw Cheikh Alassane Sène rek di ko jàppale euh, ñu dikk ci suñu deuxième bunt naa xamdul bu Bouchayri di ci wax ni fa inna amarati bi suui ma taadat min jahliha bi nadiri saybi wal xarami mu ne tey daal maa ngi yedd sama bakkan bi nga xam ne lu ma mosu sóob rek bi ma ko seetee ba ci biir lépp lu lépp ay ay ñaaw ñaawteef la te waaru sax mosu ko def musta waaru musta yéej ji boppam ci bejjaaw bi nga xam ne mi ngi feeñ ci man nuur naa ci lu bon ba xëy commencé génne bejjaaw te yëguma ne bakkan bi mi ngi def effort pour tourner wuti boromam yëg naa ne it li ma mënoon mënatuma ko ak mage mi ngi dugg waaye waaruwul fasul yéenaa arrière mu ne wala aaddat min fi'lil jamili xira dayfin alam bi rasi gayra muxtasimin mu ne préparé wul moom bakkan bi benn jëf ju rafet joo xam ne dana ko ganalee bejjaaw bi wàcc ci bopp bi amul benn jëf bu baax boo xam ne bakkan bi préparé na ko ne lii kan naa ko defee li ngir bu ma màggatee man cee jafandoo wala bu ma demee ba bejjaaw gën a génn ma def ko kersa mu dox sama digganteeg mooy yàlla nee na yëgu ci dara mu ne law kuntu aalamu anni ma uwaqiruhu katamtu sirran badaali minhu bil yi mu ne su fekkonte ne xam naa ne man mii sama bakkan bi kat mënta ganalee ba jaaw bi jaamu yàlla mu ne kon ni ma doon def mooy ma uti gàncaxu katam dañ ko daan ñuulalee kawar mu ne ma wuti ko ñuulal sama bopp bi ba bis bu jot bu ma taxawee ci seetu xool sama bopp yëg ne gone la mën a nuuraat ci yi ma nekkoon waaye malheureusement béjjaaw bi moom dara mënu ko téye fokk day ñëw mu ne bakkan bi man lii bi raddi jimaahi la xayi man lii bi raddi jimaahi min xawaayatiha kama yu raddu jimaahul xayni bi lujumi mu ne man bu sey di fan laay jëlee zooke boo xam ne dana mën a jàjjantiwaat sama bakkan bi nga xam ne rëcc na comme naaru góor wu regg bakkan bu reggee mbokk yi moo gën a garaaw fasu naaru góor mënoo ko tee bajantu moo tax mag ñi dañ ci daan yar seen bopp ci wàllu lekk ak naan daawuñu lekk bu suur duñu naan ba màndi parce que loo ci defee mu lompañ loo sa jaamu yàlla mu ne man fan laay jëlee ti ku ma bir dong bir dongal ma sama naaru góor wi nga xam ne dafa rëcc ba delloo siwaat ko ci daaj mu ne kon kay falaa tarum bil maasi kasra sahwatiha inna taama yuqwi sahwatan niami mu ne bul yedd sa bakkan bi ci mooy yàlla gu bari gi muy def parce que yaa ko duufal ba mu rekk ndax yëguloo ne bakkankat saa bu lekkee ba rekk kenn mënatu ko kontrole wan nafsu muy misaal bakkan nag ni mu mel mu ne kat dafa mel ni ke xale in tuhmilhu sabba ala hubbi rada wa in taftimu yan fatimi bakkan moo xale buy nàmp ñooyam gis nga féeg yaa ngi ko bàyyi ci weenu yaay nàmp rek lay xam fu mu tourné defe na ne ween ay ween ween moo koy dundal te soo ko feralul day sax ci nàmp ba keroog muy doon am ma mais moo tax da koy forcer nuur loo ko ci jaamu yàlla di opposé wu ak sa bakkan boo bëggee dem moo tax mu wax ne faslif hawaha wa xaadir an tuwalliyahu inna min inna al hawa ma tawalla yusmi aw yasumi mu ni na nga wuute ak sa bakkan ci bànneex yi mu lay yi mu lay sóob da nga wattandiku mu méngoo ko caaxaan sa bakkan boo sàggane ba caaxaan méngoo ko oho kenn duutul mën a orienté bakkan boobu ndax bakkan saa bu ko caaxaan méngoo daf koy fàdd wala mu làggal mbokk yi léeg-léeg nga gis mag moo xam ne di ko fekk ci barabu caaxaanukaay boo xam ne fa tabaarakallaahu ahsanal xaaliqiina da ngay xam ne li mu jàngoon ci bi ngay xale wala li mu jàngoon ci bi muy xale moom rek lay tari bi mu màggatee léeg-léeg nga fekk magit ca jàkk ja wala ca sijaada ba la mu nàmpoon ci bi muy xale moom rek lay tari bi mu màggatee moo tax mu ne waraiha wa hiya fi l amali saaimatun wa in hiya staxlat taxlatil marxa tasumi mu ne na nga sàmm sa bakkan bi fexee la doon berger di sàmm sa bakkan bi comme ak jur bu ko boyal mukk mukk mukk fépp foo xam ne dana fa dem ngir sàkk fa ab neexlu nee na nanga ko fa dàq bul ko fa sàmm waaw bakkan bi grand place la bëgg rey ci sa bopp bu ko bu ko jël adopté ko parce que su ko adopté rek dana làggal sa jaamu yàlla bakkan bi musique la bëgg fexeel nga làggal ko ci bakkan bi caaxaan la bëgg fexeel nga làggal ko ci fexe ko sóob ci jaamu yàlla mu miinal ko boppam mu ne kam xasanat ladatan kam kam xasanat ladatan lil mar'i qaatilatan min haysu lam yadri anna summa fi dasami mu ne bariwaana fu mu rafetalee as daw as cam rafetal ko mel ni mbir moo xam ne mu sóob ko ca rek nekk ca defe ne lii muy dëgg te fekk na loola lu koy rey da koy rey loolu lu koy rey la te du xam ne sax moom lii lu koy rey la mu ngi mel ni ki la bëgg a rey te wane ne sa soppe la ñëw di la seet si poisonné benn gâteau def ko ci emballage bu rafet ñëw jox la ko li mu la ko jox yi mi ngi lay wan ni ku la bëgg la mais boo lekkee gâteau bi malheureusement da ngay fàtte na bakkan noonu la mel mooy gan boo xam ne ku ànd ak moom fa mu lay diigal du baax mu ne wax sabda saa isa min juin wa min sibain fa rubba maxmasatin charrun min a tuxami mu ne na nga ragal yi làqu yi ciy neex boo seetloo yu neex yëpp dafa am yu nekk ci ginnaawam yu ci làqu profil bi ci kaw ak yi ci biir duñ doon benn mu ne bari na xiif goo xam ne rekk goo xam ne xiifu ko gënoon bari na rekk goo xam ne xiifu ko gënoon ndax am na ku lekk ba rekk mu jural ko intoxication alimentaire su xiifoon nuural boppam ci xiif yaakaar naa moo doon gën ci moom wastafriqi dam a min aynin qadim talaat min al maxaarimi walzam na nadami mu ne na nga féexalee sa bët yi say bët yow fexeel ba di ko féexalee rong ñi réccu foo tollu del jooy bàkkaar yi nga def sa diggal sa borom ndax jéggal na la kom jéggalu la ko ndax tooñ gi nga def baal nañ la ko mu baaluñ la ko ndax yu xaraam yi kat saa boo ko méngoo dana yàq sa mbir sa diggante ak sa borom te nga taqal nga taqal sa bopp ci kaaraangal réccu wa xaalifi nafsa wa sheytaani wa asihima wa in xuma mahadaaka fa tahimi na nga wuuteeg sa bakkan wuuteeg saytaane parce que ñoom ñaar ci lu lay mooy yàlla rek lañ lay sóob ndax ñoom ñaar saa buñ taxawee rafetal la mbir mbir moomu fa mu la jëme du neex sa diggante ak sa borom moo tax mu ne wala tutiu ma minhuma xasaman wala xakaman fa anta taarifu kaydal xasmi wala xakami bu leen topp ñoom ñaar muy bakkan bakkan bi ak xel mi ak xol bi bu leen topp ñoom ñaar parce que kii fi mu lay jëme baaxul te seytaane koy kondiir keneen ki ci des fi mu la jëme baaxul parce que seytaane koy kondiir moo tax mu ne bu leen topp ñoom ñaar ndax yow kat fexe nga bu ba góorgóorlu xam pexem seytaane ne baaxul xam nga ne it bakkan fi mu la jëme doxul muy natta boppam nag ne astaxfirullah min xawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan li di uqumi mu ne maa ngi jéggalu wax joo xam ne jëf gungewu ko wax ju jëf gungewul nag nee na mi ngi mel ni nga fekk ku munta am doom jigéen ju sëy ba màggat nga fekk ko ci biir biiri nawleem di ko laaj naan ko naka xale yi mu ñu def dana la tontu mais day am kersa nee na noonu la wax jooju àndul ak jëf ak mel mu ne amartukal xayra laakin las laakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu fama qawli laka staqimi mu ne maa ngi lay digal lu baax te pourtant man nekkuma sax di def lu baax léeg-léeg nga gis koo xam ne danaan yow ci koy téere nga yor da ngay digle ca ngaay to doo sangu waaye yow fexee a sangu rek doonte téere bi bu tooyee yàqu yow fexeel sa der bi jàkk waaw moo tax mu ne maa ngi lay digal lu baax waaye donte nekkuma ca yow fexeel ba nga jub donte le man mi wax sax baaxuma moo tax arab ba di wax ni ne wanzur li maana alxawli wala lil xaayili wal xaqu maqbulun walaw min jaahili na nga diglu njariñul wax ji ak li ëmb sémbulu wax ji te bul xool ci ki koy wax parce que wax dëgg mën na jóge ci dof wala tazawwatu wala wama tazawwatu xabla almawti naafilatan walam usalli siwa fardi walam asumi mu ne dool la di ko benn jëf ju baax lu dul farata bi ma yàlla santoon julli farata musuma cee dolli naafila koor mosuma ci dolli naafila aj màkk musuma ko def ba naafila jëf yu baax yi musuma ci def benn ba dolli ci benn ndollante ci farata yi ma rëddal rek laa yem mu ne julliwuma it lu dul sama farata wóoruma lu dul samay weeru koor kon man sama mbir dana xaw a critique kon foofu mooy suñu deuxième bunt ci ma madih yàlla nañu yàlla defal jàmm defal leen ko di ñaanal ñëpp xéewal ak sutura yal na ko yàlla dotti ci réewum Sénégal aaral ñu suñ mag ñu baax ñi nga xam ne ñoom la ñuy tiitaroo ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu